الذي لا معقب لحكمه ولا راد لحكمه لا معقب لقضائه ولا راد لحكمه والصلاة والسلام على البرق الأسطع لكل متعرض من البهور والأواني الذي تتجلى به عروش الحقائق وعلى آله وأصحابه wa man tabiahum bi ihsani ila yawmi din wa naqul lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah, mbokki jullit yi ah ñu ngi jéggalu sax bu baax a baax ci kàddu yi nga xamante ne moom lañ nar a yëkkati rek ah, yàlla dogaloon nag ñu nekkoon ak imaam Abdou comme ni ko mbokk yi fi jiitu waxe rek yàlla dogaloon waaw ah, sori nañ ko waaye ko ko jige woon lañ ko ndax eh, loolu soxnaam moom sedd na ko te loolu duñ ci xuus tey bu ko defee li ñuy yitteel mooy yàlla dafa dogal imaam bi mu génnee àddina keroog bi ñu ko yëgee muy suba teel ñu dem wasifa ba ñëw tëdd ñu yee ñu si ay nelaw ni imaam noppelu na mu nekk fa maanaam lu ñu bett waaw mën nañu wax lu ñu bett laal si moom ndax jamono jooju doon nañ waaj pour seeti ko waaye mel ni saa ñu ko bëggee seeti rek day am lu ñu tënk ci wér dig yaram. am na dem naa ba Mouhamed Cissé man ko ah man de ba may ne Louga si kër soxna Asusi mooy kër bay Abdou bay Abdou Karim sar ñu joxoon nu fa benn bis talibé yi comme ni ñuy toogee noonu di waxtaan ki nga xam mooy kilifa kër ga mu joxoon ñu dog yoo xam ne ni lii de kuñ koy defal dina gudd fan ndax mag ñi dañ ko daan def. yàlla xam na ni fan yooyu sax Mouhamed Ciss maa ngi ko koy wax Mouhamed Ciss ni ma Abdou Abdou nag ma ko seetal mais dama ko seet ba soon mën ma ko gis ba yàlla keroog ba ma toogee ak laa koy nettaliwaat bi mu faatoo laa koy doog a gis. kon nga xam ni kon maanaam nit ki moom li ñuy wax rek bu ab ab ab jotee kenn mënu si dara waaw appam bu jotee moom kenn mënu si dara kon nag bu ko defee nag diggante bi yàgg na lool fi mu faatoo muy mois de juillet la faatu ba yàlla dogal ñuy dem di dem ba mois de mars ba le passé yàlla si la dogal ñu tëdd tuuti rek ñu maam ay côté 15 heures rek mel ni dañuy jógal bind si góor gi kon maanaam dañuy xam ne kon xasiida boobu dañu maanaam digal lu ñu si jox moo tax bi ñu koy def sax maanaam bi ñu koy def sax yàlla moo ci def ak taysiir ba nga xam ni biñ koy def afkaar yi ni mu dunoon dikkale tamit dafa yomb loolu ndax sonnuñu si biñ ñëwee tamit Oustaz Ibrahima Dieng mi nga xamante ne moom wax dëgg yàlla dama ko wóolu bu baax si xam-xam ndax moo ñu boole mën naa wax ni côté depuis 2000 yaakaar naa laa jóge Tiwaawan dem fekk géejawaay mu jox ma fa école maa ngi moom mu may tëralal maqaamaatul xariir may ñëw su ma wàccee géejawaay dem fekki ko parcelle di war sama vélo di ko pitaali di ko fekk ba mujj gi mu boole maag Pa Cissé Jinge Pa Cissé Jinge ni moom di ma tëralal kon dama daan fanaan ak moom mais ku ko ku ko dàq tudd yàlla gisuma ko day tëdd di nelaw sax nga fekk mu yor kurus gi kurus gi doo fàttali ko mu fu muy teqali ko ak moom kon loolu moo tax ñun dañ koy bàyyi xel ma tax fu mu nekk rek ñun duñu bëgg a wax te moo tax moo tax jàkka ji sax fu mu ñu jiitalee duñ nangoo jiite moom xam na ko si ñun sax ba duñ jiital waaw loolu moom bu ñu bari xamee ko noon nag ñàkk jiital gi ñu dul jiital si ñun la ñun ñoo ko bëggee noonu ñun du ñu jiital si kanamam ndax dafa dañoo dañ ko bàyyi te ñemewuñ ko. kon bu ko defee xasida bi nag dañ koo defoon biñ ñëwee wan naa ko ko moom xam naa jotoom mayu ko ko nde commencé woon nañ kas moom a koy tas xixal waaw biñ demee diñ demee ba ci biir dinaa leen wax ni la baat sàngam moo ma ne def ko nangam. yàlla dogal jotu ko woon tere nag ndax boobu ba léegi maa ngi ko doon dégluwaat waaye boobu ba léegi waxaatuma si dara yàlla dogal ci jamono jooju bi ma ko ko joxee man dox naa fii ba Tiwaawan sa xadratul malikiya ma gaaral leen xasida bi ñu rafetlu ko ni ma ah kii de yàlla dëgg la bu fekkente ni lii nekk si moom yëpp waaye maa ngi ñaan su may firi xasida ba pare ku ci gis li ma ci wax loo xam ne nekku si maam Abdou ne ma ni tomb sàngam li nga wax du dëgg kon bu ko defee rek ñu ngi jéem a xuus ci xasida bi xam naa comme temps bi njëtt nañ sax Babacar doon nañ sàkku sax mu koy kii mais comme temps bi njatt nañu ñu commencé rek xasida bi firi mooy dañoo wax ni wa kii bi xattin baadama al aynu dammaat li ma gaaba anna sayidun maa laha dëhra ñun de ñu ngi jooyee am mbind kan la ñuy jooyee mbind kañ lañuy ñuy jooy am mbind mooy ginnaaw ba nga xamante ne rangooñ yi sotteeku na lu tax ñu koy jooy ngir sang boo xam ni dafa fàddu te sang boobu ñuy jooy musul foo ci jamonoom parce que lolu mag ñi netal nañ ko te ñun liñu fekke ñun gisunu imam Abdou ci ay tiaxan ñu ko mësa gis foko ko fekk rek ci jaamu yalla ñu tek ci ni fa ya fajru sabtin qad ahabba murahilan wala ma ataana naayuhu sirtu mahyura, wona fajru fajaruk qad ahabba mu ngay waaj wala waaj na muraaxilan mbir mu muy aji namm wala ma ataana naayuhu kerok ba ñu ba surtout mujj nañu ñun ñi maxyura nek ku ñu gëlemal kon mu melni hasida bi ñu ko def ci bahru tawil faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun bu ko defé arut eh, bi dañ ko def maqbut manam ñu def ko mafailun so démé ba ca jeexintal ba nga xamanteni mom moy darbu bi ku ne xam ne tawil dafa am ñetti façon arut eh, amna luñu wax mahzuf niki mafaa'i am na lu ñuy wax taam muy mafaa'ilun am na lu ñuy wax maanaam maqbuut muy mafaa'ilun ñun nag dañoo def darbu bi dañ koo def mafaa'ilun aruud bi ñu def ko mafaa'ilun kon bu ko defee loolu moom mooy kii bi faqad naa imaaman aadilan aabidan xiban fa yaa rabbi laa tuhmil ibadatihi turra ñun de ñàkk nañu maanaam imaam boo xam ni aabid la woon jaamukati yàlla la woon waaye tamit maanaam ku maandu woon la ak maandoo moom xale yi doog juddu sax xam nañ ko xiban ab soppe la ñu woyafal xiban foofu maanaam mu nekkoon xibban ñu ñu woyafal ko ndax way may nañ la loo xam ne musaddad la nga tax taxfiif ko kon bu ko defee loo tax ñu ne xiban ab soppe kon nag yow suñu borom ñu ngi ñaan yàlla boo neenal ay jaamu yàlla moom imaam Abdou. faqad axbara abnuhu maxeet siis bi almani bi ana abdu mawtan qad afaada zikra بشهرين قد يومي وبعد فراح فمدبر فلم يقتئ الأقوال صدق لمن أجرى doomam Mahet Siis lañ ci doon jokkool ndax ñun dañoo bokk xadaratu atijaane bu groupe whatsapp la yàlla dogal biñ ci demee bay kii damaa fàtte bis bi mu génne woon àddina ñu déggante ci si whatsapp kon dañuy déggante ndax moom day def foofu ay leçon macha allah bo bo def na mu bokk si ñi nga xam ne demuñu fële rek fàtte seen waaw allah bu lay def mu nekk Allemagne bu ko defee bi ci déggoo mu wax ñu ni sama papa dinaa ci benn benn kéemtaan mooy wax na annoncé na ni ñaari weer moo ko fi desee waaw te ne te nee na ñaari weer ba mu matee yokku ci dara te nee na loolu imaam annoncé woon na waxoon na leen day dem ñaari weer moo ko fi desee kon moo tax man la na nga dëggal ki nga xam ne moo jox xibaar bi ndax xamewuñ ko si ay waxi neen ndax Maxet moo ñu ko wax fala ta'jaban raaji hadis al Bukhari bi abdin qaribin lil ilahi dara durra fa hal man yakunu Allah aynan lahu safa wa yadan wa rijlan la ya, ya, yasiru aqan basra loolu bum la yem bo demee ci saxiixul Bukhari, da nga fa fek suñu borom di wax ni manam yonent manam suñu borom di wax ci al qudsi ni jambi, manam duma jigen jigen lu lu gën lu nga xam mom la faratal ci mom waye tamit jambi du deñ di ma jigen lu ci ay nawafil ba ma bëgg ko su ma ko bëggee man maay nekk bëtam bi muy gisee man maay nekk noppam yi muy déggee maay nekk tànkam yi muy doxe waaye tamit man maay nekk loxoom yi nga xam ne moom lay songe nee na su ma ñaanee ma may ko suma ma musloo mu muslu ko kon imaam annoncé ak faatoom bu mu nekk kéemtaan ci yow ndax yàlla mën na koo may nitu yàlla fa yaa rabbi raddinaa bi maa qad qadartuhu wa maa li ilaahi bilqadaayi ila sabra yow suñu borom ñun de ñu ngi ñaan yàlla nga ñu gërëm loo lii nga dogal ci imaam ndax ñun amuñu lu dul muñ ci lii nga dogal loolu rek lañ ci am bukaa i miin nasmin qad yufiidu li jaahilin bi awsaafihi yaa rabbi zidhu hana tuhra sañu suñu jooy yi ñuy jooyee ci ay nosey way mën naa jariñ jëmm joo xam ne réere woon na ay melokaani imaam Abdou ndax suñ ko nosee ay melokaanam nosee ko ci ay way ki musul fekk dunduk imaam Abdou su ko xoolee rek wala mu jàng ko rek dana jariñu ci ci ci ay melokaanam kon nag yaa rabbi yow sama borom zidhu yàlla nga dolli ko xanaa ca fële ku ne xam na ni booy jàng alfiyatum nu malik xanaa ak hinna ak hunaalika ak sàmma yooyu yëpp day firi fële foofa lay lay lay lay junj moo tax ñu ni xanaa yàlla nga ko dolli ca foofee mu nekk ci barzaq yàlla nga ko dolli ak laab faqad xaaza maa qad xaaza lakinta zallala faqad xassa haadina bihi laa takun batra kon lakk na li ko yàlla may si ay garaat ak i daraja ak i may waaye tamit ànd ak loolu lépp toroxlu na ba kenn musu koo xam si moom kon nag yow maanaam yonante bi salaa salaam nag dafa soññee ci loolu ne nag man tawaada lillahi rafaahu llah képp ku toroxlu ngir yàlla yàlla moo lay yëkkati kon looloo tax imaam Abdou bi mu maanaam yàlla jox ko cër bi mu ko jox xalimun safuhun laysa fazan mushaddidan karimun zuwazu xiyayi aw waqaatihi zikra imaam abdu ko lewetoon la safuhun ku mënoon a jëllale la laysa fazan nekkul ku ñàkk kersa mushaddidan koo xam ne dafa metti nekkul woon ku metti nit ku yombaloon la ay mbiram karimun ku teddoon la tamit moom imaam abdu daan na dundal ay waxtoom ci tudd yàlla loolu moom ñëpp mën nañ koo seede sujaaun jawaadun abqariyun muwaqirun fa akrim bihi qat'an shahinan wa ma maara kii ñuy wax di ko jooy di tudd ay melokaanam ku jàmbaaroon la ndax moom xam nee na da daan wax ni moom xamul sonn nee na bi mu gën nekk ndaw da wax ni moom xamul luy sonn kon kooku jàmbaaroon la jawaadun ku tabe woon la ndax li ko yàlla joxoon boo xewlee ak yeneen ak yeneen da gis mu déplacé wu ñëw ak ànd ak li muy kii yëpp abqariyun sang la bu mat ci côté bu ne parce que abqari du ku ku nekk lañ koy tuddee nit mën na nekk sayid waaye suñu nee diw abqari la rek mooy côté boo ko làmb rek danga nga fekk mu feese ko tepp kooku la ñuy tuddee abqari mu waqarun ku yàlla defoon la ñu ko kon nag yàlla maanaam yéemu nañu si tedd ngeem xat acham xiinan wa mamara ànd dundam gi yëpp musul werante kenn daaw ko gis muy werante wa zu haybatin lam tamnaahu mumaazixan li sa li sibyaanihi laa laa misaaxan bada jawra ku ko yàlla defaloon na tey tey mooy loo xam ni nit ki boo jàkkaarloog moom doo ko ñimee te maanaam du caagi ni aw ayam la waaye yàlla moo def ci moom loo koy ragale doo ko ñimee xool sax boo seen bët yi ne jeno doo du ñaaraat loolu nag la ko yàlla defaloon waaye nag ànd ak li koy yàlla defal tey yëpp su daanaka fak ay xale soo ko rombaan ci mbedd mi da nga koy romb muy kafa xale yi waaye nag laalaa misaaxaan ba daa jawraa du kaf goo xam ne day feeñal ak ndëngite ak jàng ci moom ba nga koy xeeb comme yenn mag yi ñu leen di xeebe loolu daaw ko dal ci ak kafam فما فرق الإخوان لا ذو تعصب وما هو مخب الحظ لن نفس مزهارا كون داول تقل مبوك جلدي داول بار بار وون تاميت كوا خمانتيني دفو بغون أبتر وآية تاميت داول فينيال بوبام كون يو يب إمام دفو ملوكانو إمام لقد قررت به العين ليس ذا إمامات مقدوخ فتبا لزي فتبا لزا وزرا مانام إمام لبو قبني xol yëpp sedd nañ ci moom li mu fi jiite yëpp ñaar fukki at ak nangam nekkul koo xam ne da ngay jiite ba pare ñu lay jam ndax comme li ma ko waxee woon ci benn kii yenn saa nga taxaw wax ci benn benn point wax ba eggal nit ñi nit ñi daal di xam ne li nga wax nekkul mais nag nit yenn saa yi tamit maanaam moom nag yàlla dimbali na ko ba lu muy wax rek chaque jour day nekk si moom kon nekkul ku ñuy jam si dara loolu nag ku ko yàlla defal tawfiqu ilaahi la mooy nga dund ba egg maanaam te kenn mën laa jam benn baaraam am na ko ko seede léegi fii. kon fa sawtun lahu lam yaku jëhran muwassitun faqad zumma aswaatul ximaari fa daa jëhra yàlla defaloon na ko ku ku ku yem ku yemoon baat la baatam xumbul woon kon parce que loolu yëpp na maanaam faqad zumma aswaatul ximaari la fa daa jëhra wala waxsit fii mashika wala waxdut min sawtika inna ankara al la sawtul xamiir yàlla nee na maa luqmaan ba muy dénk doom ji nee na ko wa wa waqsit fii machika booy dox na ngay digg dóomu bul rambax rambaxi waaye tam bul tooy ba ëpp kon na nga digg dóomu booy dox ah? mu ne nag boo na ngay na ngay damm sag sa baat sa baat na nga koy wàcce bu muy xumb lool ndax nee na baat bi yàlla gën a rëbb mooy baatu mbaam kon fa haza nasifun ma libaasin mutaharin ka qalbin lahu safan wala jaziyan charra kii nag ku setoon la waaw ku setoon la ànd ak yére yu ñu laabal nag ni ki xolam ba si sellite ga newoon ci xolam ba waaye tamit nekkoon na jëmm joo xam ne daawul fayantoo lu bon daawul fayantoo lu bon isa man nisa yow man taxaafal na bil xitaa fa akrim bihi bil ibtisaami ata zajra jamono bu dajewaan ak jigéen ñi muuruñu du leen fa nekk di leen gëdd de muuñam nga moo di jaaj bañ dem muuru ji kon loolu tawfiqul ilaahi la kon loolu yàlla defaloon na ko kon fa hawnan bi zaqat kaane yamshi wa ma wana wazal mashu yasa man bihi laahu qad asra su daan dox ndànk la daan dox maanaam waaye nag dox du dox boo xam ne doxub ku diib la mooy dox boo xam ne dañ naan kii de ak a yambare du dox boobu de daana du ndànku waaye nag ndànku gam daan ndànku du ànd akuk yambare akuk diib ndax yi dox nga defal ñu ko fële yowmal at nab xat at nabta ya za naam aqul walim laa walim laa aqi wal barrukal gaysi tasira soo ma ne yow yaa ngi xaabaabal ci wax gi nga ci ci melokaan yi ngay feeñal imam man la pourquoi du ma du ma xaabaabal xaabaabal gi ñuy xaabaabal li ko waral rek mooy comme suñu suñu suñu borom dafa wax ni wala dañoo wax ni borom bu xam ne dañoo wax ni inda zikri saalihin tatanazzalu ar rahma maanaam bu ñuy tudd nit ñu baax ñi yërmande day wàcc bu looloo tax rek bu ko defee xam naa ah mbokk yi ngeen may ñu daaneel tuuti rek waaw parce que dañ dañ see def loo xam ni dañ ko wasiye aw dañ see defaal ay wasiye yoo xam ne dafa jëm si suñu mbokki taalibe yi bu ko defee ngeen ñu may ngeen may ñu rek kom waxtu wi des na 30 minutes kon bu ko defee ñu tënk foofu aw saaf yi fa yaa fawzukum yaa ahla béer qad xabaakumu ilahi suyuqan lañ yazaalu lana faqra kon maanaam yéen waa béer woo naa seenu texe ndax yàlla da leen a may ay sëriñ yoo xam ni ñoom ñëpp puukare lañ ku si nekk mag ñi fi jóge koo ci jël rek imaam Abdou Cissé imaam Abdou Cissé imaam Mbaye si Dieng imaam Njeri Tine ak ñi leen jiitu ñoom ñëpp koo si jël rek maanaam day doy puukare kon xam naa ñuy tëb rek fa yaa abdu haza fa yaa abdu haza qad rasaynaaka raajiyan min allahi mawlaana qabulan kazal ajra imaam abdou ñu ngi lay marsiya di tudd say melokaan ak say jaloore ñu ngi yaakaar ci yàlla mu defal ñu xabul nangu yàlla na yàlla defal ñu ci yiw loolu rek lañ ciy sàkku kon fa asu bihi xat afta man nafsa bukuratan lisa naa la maaxaat naa la min rabbihi mayra kon nañu roy ci imaam Abdou ndax dafa teel a feral bakkenam teel naa feral bakkenam looloo tax mu am li mu am ci ay xontu ci borom bi subhaanahu wa taala wala tafalu filan bi duuni muwafaqin bi nassin sariqin xat ataana bihil musra kon ñu ngi dénk suñu bopp di dénk ñëpp lépp lu ñuy def nañ ko dëppaleeg nasu alquran wala nasu sunna kon loolu jam mam maam taalibe bi wala bu koy def rek du rero ak kéem maam looy def rek na nga xam atte suñu borom ci loolu moo xam alquran wala xadis kon wa bi ilmin yaa aqi wal tutabiqan wa illa ximaarun la tushabih bihi dahra nañu taqoo xam-xam waaye tamit boo taqoowee sàkku xam-xam nañ koy pratiquer ndax boo jàngee te jëfewoo yaag mbaa mu sëf ay téere ñooyam fa jilsaatukum li zikri ajmil ka abdi siis fa lazim bihi maa dumta hayyan wa kun sabra boo leen di toog di di tudd yàlla si wasifa yi toog comme jataay nam ko daan toogee imaam abdou nag toogaay wa maa jilsatu taqiyi haza muxaalifan bi yaasin la daa daa tamaami sajdaatihi turra kon imaam ab ni mu daan tooge bu ñu daan wasifa ñun daan dundandoog moom wasifa mooy comme toogaay bi ma yonente bi daan tooge buy sëlmal ci julli noonu la daan imaam tooge dindi mbaxane mi teg ci suuf noonu lay tooge ba ñu wasifa ba pare du changé benn yoon ci tooge ni wa in kunta fii qawmin fa janib tarabbuan wa bastan li rijlin zar xizaaran aqi kibra su la yàlla defee nga toog ci am mbooloo na nga maytu farankolaay parce que boo gisee ma koy maytuloo suñ mbokki taalibe imaam dañ ko doon maytuloo bu baax saa yiñ toogaan ci di di wasifa mu gis benn xale def ko bu pare dina ni di leen maytu toogaayu farankolaay toogaayu farankolaay toogaayu kilifa la ci njabootam ñun noonu lañ ko daan waxee moo tax ma koy maytu parce que loolu bu dee ci ndaw li ndaw ñi mën nañ la mën na laa yóbbu ci agré waaw bu ko defee laqad aasa ma laqad aasa haza maa yura jaalisan bihi faqad xazara al wurrada minha fa da zajra wala boog fa kun zajra maanaam dund na ba génn àddina kenn mësu koo gis mu tooge ko daan na maytuloo taalibe yi daan wird ci ci mbalaan ma naa leen di leen ko maytoo toog kon ala axlisu fil kasbi saw nan li irdikum fa yaa saaxi maalin maalun xaalisun raaxatul uxra nañu sellal ni ñuy fàggoo ngir ñoŋal suñuy der ndax kat yéen samay mbokk maanaam alal ju sell noflaay la ci àllaaxira wala taskuru lil maali wal jaahi bal wa in kaana amran zahiran yuhrimul xayra bu len tok ci der di di tuddu yalla ngir alal bu len jox dog yo xamni den koy def ngir daraja waye suñuy zikar nañu zikar ngir yalla rek ndaxte donte mbir mi nek na phénomène xewna na jël ay dog diko ko di ngir am daraja ngir diko ko wir di ngir am manam alal yoyu da xagn aw yiw kon bi ihsanikum fil walidayni fa farid fa rabbi fihima zid wa in jara seenu rafetal si ñaari wajur nañ ci xir ngërëmal suñu borom mu ngi ci rafetal si ñaari waajur donte ñoom ñaar dañoo jeng na nga leen ci topp gën a rafetal wa hal yafzahu al aqwaamu min sayyidin qada wa qad xallafa al uzama ma misluhum zikra kon naka la dee si jàqe ci sang boo xam ne faatu na te pourtant bi muy faatu mu ngi wuutal ay ay ay dogu way dogu ñoo xam ne ma misluhum amul ñu mel ni ñoom zikran ci tudd yàlla ku ne xam na ni mag ñee ñuy fekk ci mbalaan mais ku leen gën a dogu ay ñoom bàyyi góor mag coon ay ñoom bàyyi omar mi ku ñëw fekk leen fa ko dem ku ñëw ñu ñëw ku ñëw ñu ñëw kon lolu manam lolu imam lolu lepp maam formation imam la parce que suñu gisoon imam di teud ci kër gi kon ñun mom ñun duñu mëna def non waye mom da daan teew kon xamna abu ahmad al bir tijani, laqad rasa waliyan taqiyan ya ilahi lana sitra kon arab moy waxe nonu ko juk tijan ki ah baye ahmad al bir kay ko juk bir mu ngay feñal ay awsaafi imam nit kooku nag nitu yalla la won ku ragal yalla la yow suñu borom yalla fegal ñu wana aw ay kaza walidina yàlla nga ko fegal suñuy waajur wal masaayix suñuy sëriñ yàlla nga fegal leen aw ay rabbana suñu borom maal ali wal wal wal ixwaani diinan huna xashra yàlla nga ko fegal tamit ñooñu yonente bi ak mbokki jullit yëpp ñu nga xam dañoo bokk ci diine yàlla ngeen ko fegal yàlla ngeen fegal leen aw maanaam yàlla nga defal leen sutura laa bëgg a wax yàlla nga defal leen sutura ci diine maanaam ci fii ci àddina ak fële ci àllaaxira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 leen di nuyu di leen ziar di leen balaax di leen balaax di wax ni man la Mbaye Ndoye Thion dëkk beer gi di wëlëre maxet di doom si góor gi mën na ni di doom si góor gi daal kon tey bu yàlla dogalee bi si góor gi euh, dëgg la du suñu du suñu càkkutéef pour ñu wax si góor gi ndax ku ne xam na ni parfois dama koy dama koy wax sax dama ni damay am kersa sax di feñal li sekk seq ak góor gi dama ci am kersa ndax dama xamni ni benn buma wax rek nit mën wax téméram kon loolu ku ci nekk ndawal ak guddi la rek ku ci nekk la nga japp ni yow rek yow ya ko yor ñepp presque ñepp ko yor mom mom mo teddo tëddoo di wax ni suñu suñu góor gi dal ni nga ni nga ni nga suñu yaaji waxe sank moy jarul jarul joy, li jar moy xol lim aglim fi dundu, ak lim doon dundu ñu jëm lo rek mo am solo ndax ku ci nekk ak lo ndawé ndawé jox na la yitte boo xamante ni daf la yéem da ngay jàppe ne da ngay jàppe ni góor gi sax am na leneen te fekk yooyu ñàkk xeeb doomu aadama ak fonk doomu aadama moom la waraloon man bari na loo xam daf ko daan dox daf may wo ànd nañ sax dem fii ba Dakar si ay problème si yoo xamante ni amaana ñu bari sax yëguñu ko man dama daan am kersa sax di ñëw si kër gi ba bari na loo xam buñ ko daan wax par téléphone lañ koy wax ba bi tëddee feebar ba bi ngay waaj yóbbu Thiès lu mu soxla daf may woo téléphone ni ma nangam ak nangam ak nangam bu mu waxee mun ma nangam ak nangam si diine ji nangam ak nangam ak nangam xam nga loolu dafa nekk loo xam lu rëy la nit bu fekkee dafa la bàyyi xel ba def la soññ si sa wàllu liggéey si sa wàllu jikko si sa wàllu diine kooku dangay ngay dem ba boo dëgmalee safaan sax sa xel day dem si moom ndax loolu rek lañuy ñuy doyee koo xam daf lay jubbanti tout le temps ba nga xamante ni même bu même bu même bu même bu jëmmam nekkul sax yow sa xel day dem si moom ni muy demee si moom mooy lii ma dëgmal tat moom aayewoon na ma lii ma dëgmal kat bu ma ko muy ñëw man damay daw dundin woowu lan doon dund ak moom muy kilifa gu matoon kilifa muy kilifa goo xam royuwaay la woon si côté yëpp si dal si nangoo liggéey man lépp lu daan xew sama kër boo ko nee heure sàngam heure boobu bu jotee di nga gis mu fëgg bunt bi waaw dara daan xew sama kër mu jiitu ko sama pàpp moom boo ko nee nangam laa soxla sama kër moo xam tudd la moo xam nangam dala naan ban heure mooy jàppandi boo ko waxee heure bi heure bi moom buy jot moom nga fekk te li wérti wóor mooy boo génnoon fii di nga laaj ay nit ñi toog fii yëpp loolu lan lay wax. loolu rek lan lay wax. waaw te loolu dafa nekk loo xam waaw. waaw dafa dafa dafa nekk loo xam luy luy luy luy seedeel dëggug nit ki la ndax bu ko neexoon toog këram ñu yónnee ndaw di yónnee waan ndaw mais bu la nee heure sangam heure boobu moom jeex na te chaque jour boo ko gisee mu waaxu waaxu bu dëgër rek xamal ni waxtu julli waxtu julli bi si boppam moom moo dem ba sës. mais fu mu romb nit mën naa kaf ak moom li gënoon a yéeme muy xale bi muy nangam imagine sànq seede biñ nga seedal te ñun ñëpp ñu xam nga jigéen ñi daawul muuru wala di joxe loxo wala nangam ak sàngam pour dafa amoon dafa amoon méthode boo xamante ni dina la corriger te da ngeen di continuer kaf te mosoo dégg mu toog ak yow naan la xaalal laaw xaalal rasul yonente bi nee na nii nangam rëbb na lii nangam sàngam mais si kaw léggéenam si kaw kaf ak yow si la lay orienté ba toog naa ak ba taay mu seen ko muy ñëw mu ne xaaral ma daw bàyyi doo ngi ñëw. te pourtant bu ko neexoon tangal ka bu ko neexoon nek fay xuppe bu ko neexoon nang mais amna pédagogie bu toll ni dina jàllale message am te dula blessé di nga ñëw man tok na sama place ba tal nit ñëw ni que Baye Abdou Ciss mo ni que batay nuyo goma pour wan la ni la sante wi ngay bi ngay bi ngay di bi ngay di jokkalante dafa war am lu jiitu koko ni ga wa Baye Abdou lan nga bëgg ndax man nee la Ciss mo ni que nono da nga assalamu alaykum ba ñu soko continuer ci lool xol di ngay xol da ngay xol yoy jangat waaw nga xam ni daal wax dëgg yàlla pour ñu pour ñu gàttal ka wax dëgg yàlla ñàkk nañ kilifa goo xamante ni muy man muy keneen ku si nekk man li may li may li may li may sàkku si man di nga sàkku si ñëpp mooy ñu xool ni mu daan dunde ñu xool bu bu bu ñu wax rek ay def na lii wala def na nii wala def naa non non ndax li mu doon def loolu toggin bu yàgg la ndax dama toog ak sam papa mun ma xanaa xamoon ni sa baay Abdou musul jaar si ndaw nii la ma koy expliquer ta tay ji bima jokk jokkoog Souleymane Baye Assane ak dañuy mënul ñew mais nañ ko andir bi mu ñew bu fof ndax musul jaar si ak ndaw ndax ñom liñu tombé tombee moy ay lamb ak yoy mais nee musu sé bop sam papa ni mus dem tolu beer bi nga xam tolu dëkk bi la ko rek bañ fay joggé ñu ngi jaar si benn tool bo xam dafa amon mbokk mu ñor mais nee niñ duggé ci si tool ba niñ génné ñi ñu ngi faq ci mbokk yi ñii mais ni mu duggé ba ni mu génné laalul gubu mbokk amul benn gubu mbokk daka xam da laal ak yeneen ak yeneen yo xam da ngay tok ak ay mag ñu de koy expliquer nga xam ni lolu may ak suñu borom la donte njambarte mu ngi ci lepp a ngi si mais don na jëm jo xamanteni dal man daal limay sakku ci ndaw ñi moy ñom oustaz ak ñom Baye ak ñu jema roy ci mom ñu jema xol limu don def nan la ko don defé ñu jema xol ban pédagogie la tégon pour di soñé pour di jubanti pour lan mo taxone ñu bari jox ñu jox ko cër du won alu ba ju sori du won xaliss bu bari du won martaba du won lanen mais yàlla defaloon naka moom si si si yaatug dënnam ba ak lu ko nit ñàkk manqué de respect di nga ñëw ak tuub ndax na muy jëflanteeg yow ndax du la du la du la du la ni man maa la yilif rek wàcc nga yoon wi rek ma dal sa kaw te loolu dong moom moo li ko mayoon mooy yaatu dënn man si li ma jàpp ndax bu ko neexoon tey jii bu oustaz jàddee rek mu corriger ko si changé te bari na ñoo xam wax nañ ko si jotaay bi daana toog ba si ak mu wala téléphone ni la ñëwal kër wala mu wala téléphone ni la nangam ak nangam ak nangam te ku doyloo woon xalaat la ku doyloo woon xalaat la man danaan am mbir moo xam da ngay wax mun ma yow da ngay wax ma ne ko góor gi den mun ma góor gi mun ma da ngay wax kon xeebuloon xalaatu kenn te loolu nag wax dëgg yàlla dafa jafe ndax bu ko neexoon ne man imaam laa seen papalaa laa seen lii laa seen laa laa bu ma waxee kenn du si teg baat te loolu moom wax dëgg yàlla dunduñu ko moo tax ñu ñime woon ko kër gi nekkoon suñu fréquence bi ñuy nekk bi ñuy gën a nekk tout tànk sax suñu lépp fii la woon suñu lépp dañ daan xëy suba teel nekk fi ba ba heure bu ñu neexee bu guddi jotee kenn daawul xaal ban heure lañu fiy jege te loolu lépp bu fekkonte ni te amul benn jamono boo xamante ni di nga fi nekk sañ fay def lu safaano loolu moom xalaatu bi ñuy gën a nekk ndaw di nekk ay tour yooyu sax xalaatoo maquette ay ñu teg fii bandu musique xalaatoo ko loolu moom xal xalaatu ko sax xalaatoo 31 xalaatoo leneen loo xamante ni di nga xalaat ni man maquette moom moo ay ji dañ ko fi def jamais kon daal ñu ngi jéggul ñëpp te xam ni xërte la waye wax deug yalla buñ ci doon wax ba suba point par point man nañ ko see wax te li ñuy wax dañ ka dund ak mom wala ñu fekke ka ndax wax deug yalla jigéen won ñepp jigéen won nañ ko waye man mo wax deug yalla jigéen won nak waaw si lo xamanteni luñuy luñuy luñuy lu ci lu kaddu si kaw si te mu doono nit ko xamanteni ku ku sóoraale won bés bi la ndax lu mu daan ak yow si walu alal man gisuma lo xamanteni dañ ka nga si wax mu di si tek baat wala lu mu la ni joxal ma diw da fay jaar ni la nangam waaw man dama daan jëflanteeg mom si ñi mu yoroon si tool yi si wàllu ay engrais ay yooyu mais lépp loo xamante ni warloo naka ak yow wala mu wax ak yow ni mu ko ni mu ko waxee yow noonu la koy doxalee dangay toog ba si ak mun la génneel kaye bi nangam ak nangam ak nangam yëkkati jox la dem ak boole seeg kanam gu leer boole see sant boole seeg gërëm ndax nit di nga jox sa alal sax mu ñëw di la ko delloo wan la geneen kanam mais moom da lay wan ne kanam ak yow mii kat da nga maa xettali woon ñaanal la soññ la def la lépp mais daal wax dëgg yàlla góor gi moom nañ ko ñaanal suñu borom defal ko njéggal yokk ay martabaam xam ni daal ñàkk nañ ku rey ñàkk nañ ku rëy koo xam daal euh, dañ kaa war a ñee waaye waruñu kaa jooy daal asalaamaaleykum wa rahmatullah. <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw su ko defee ñu ngi nuyu mbooloom yëpp di leen ziara ñu wax ni kii addu euh, Baye Moussa lañ koy wax nekk as taalibe as ndongo. waaw taalibe bi ndongale. waaw mu ngi noonu daal léegi waaw léeg-léeg ñu woowee ñu ko de. waaw ñu ngi sant suñu borom baax nag. di am mbégte ak kontante. ci addu ci lu mel ni di jë rawatina di ko jëmale ci jëmm ju baax. muy al imaam Abdou Ciss. nga xam ni moom géej la goo xam ni maanaam vague bu jóg rek beneen ñëw ni noo may def te lépp ak mbaax moo ko lal sama wax ci moom. dama koy tënk ci ñeenti araf mooy miimun xaaf daal miim muy baatu muqaddam nga jël miim ngi mu jox la imaam Abdou mujahidun li nafsihi maanaam xeex nag ba kenam ba moom ko ndax borom téere ba dani borom buru dani wa nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radaahi wa in taftimhu yanfatimi li ñëpp wax mooy dëgg mooy imaam Abdou jaaru cag ndaw kon mu jaahidun li nafsihi fexe na ba xex ak bakanam ba mom ko ndax bakkan dañ wax ni bak bo ku saggan ba sa bakkan don ci iliman dina la julliloo ci jumaa jo bëgg lu jullee kon imam Abdou xex nak bakanam ba yek ni mom na bakanam benen dess moy imam Abdou qaidun li ahlihi nak njabotam ba len ci yoonu siratal mustaqim ñi wara jang jang nan ñi wara am metti am nañ ko. li deugal lolu amna ben bu Omar kuma xam la ci wayam ci xam-xam ndax suma ko waxe xamna limay wax ndax dama dundandoo ak moom ci école ibtidaiya ñu amando man na ñu ñoo école ñu amando shahada ibtidaiya amando shahada indaadiya ak shahada sanawiya ñu joge fi man ak mom ñu and dem kaolax difa jang ilmul majalis nga xamni manam, maanaam eh, tere yu bari ci walu fiqh ci walu luxa bokku nañ ko jang won ak mom bokku ben nek kon kooku suma ne amna tolwa ci xam-xam xam naa li may wax te kooku ci fagguteefu imam Abdou la bokk na dañuy wax ne alwaladu min kasbi abiihi doom fagguteefu waajuram mu góor la te Omar kon ñu koy ñaanal baax yàlla na sut bàyyam aw fan yàlla sottil koy xéwale ki teraanga kon kooku rek doy na sëkk ñu mën a xam ne kon imam Abdou jàmbaar la woon waaw beneen des mooy imam Abdou daa imu zikri ku doon sax di tudd suñu borom la ndax yàlla dañuy ala bi dikri laahi tatma innul qulub maanaam xol bi soo bëggee mu am dal am yëg ni mu ngi fi di fuglu boromam bis bu ne day faral di tudd sa borom lu bari ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu woon misaal kuy tuddu yàlla ak ku dul tudd yàlla daa mel ni kuy dund ak ku dee te imam Abdou moom ñun su neewu daa imu zikri la loolu xam nañ ko te dan ko dundandoo ak moom ndax dañ ñoom bokk moom géew wasifa di bokk ak moom géew xadara kon su ne imam Abdou tudd ko tu yàlla la woon ñun xam nañ ci dara beneen bi ci des mooy mufirrun li seytaani imaam Abdou ku dawoon seytaane la ku dawoon seytaane la ku ko moytu la woon waxtu julli sooy ñëwee fekk ci jàkka ji su bilaal yéexee moom mooy nodd mooy jiite loolu na garaat la yombul waroon doon wër ci tund wi wala nga wër ci réew mi wal mis lu ko mel ni imaam Abdou xattun la yuraa kenn du ko gis kon kooku fexoon na ba moom boppa la Serigne Cheikh. tijaan si al maktum waxoon Serigne Babacar ni Serigne Babacar si fatan haasa mahmudan wa maata muhammada fa fi xaalatin yahdi wa fi xaalatin yaqri looloo daloon imam Abdou kon nag ñu ñaan suñu borom li mu liggéey ci diine li mu liggéey ci ak mbokk li mu liggéey ci tarixa bi yàlla na doon ay anwaar yàlla na doon maghfira yal na doon rahma yàlla na doon tabalwalul anwaar yàlla sotti ko ko ca ba mu tëdd te nag wa ma zalika ala bi aziz te yàlla képp ku ko xëyal gontul ko bu ëllëgee mu fay la te Imam Abdou xëyal na diine ji imam abdou gontul na diine ji imam abdou xëyal na tariqa bi imam abdou gontul na tariqa bi imam abdou xëyal gontul na mbokk kon loolu fu mu jaar yàlla fee ko ndax inna allaha la yudiu ajra man a amala kon su ko defee yooyu yëpp daal ay xéewal la ak i teraanga ñeel ko fële mu tëdd te am nañ ci yaakaar ni suñ borom di ko fay kon su ko defee ñu ngi ñaanal njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na yàlla teg ci ñoom loxo wattu leen te sàmm leen te aar leen ku mel ni maxeet siis jàmbaar la fàkki tëdd nga xamante noot comme ni ko Omar Cissé di Amin Lamine ma nekk fële Espagne ak njabootam moom tey mu ngi ciy liggéey lu mat sëkk kon ñoom ñëpp daal yàlla suturaal leen ñu tënk ci am jub kon loolu mbaaxu suñ borom la kon nag ni ko ñëpp xamee te ñëpp waxee ko ni imam Abdou daa baax mënta weesu yaa baax kon dañuy ñaan suñ borom yàlla na ko yàlla man de ak njéggal waaye daal mu yëg ni dëkk bii di béer ñëpp amee nañ ko njukkal tund bii di tund jandeer siiw na fi wattu woon école arab bi jiitu woon masuli yooyu ay maana imam Abdou ay garaat yu bëri yàlla daf ko tappaloon garaatu doon julit garaatu doon imam garaatu doon doon bilal garaatu doon taalibe cheikh garaatu doon masul ci tund jandeer ci li jiite école arabe yëpp loolu yombul te yàlla defal na ko kon nag ñaan suñ borom yàlla na ko yàlla teeroo yërmande teeroo ko njéggal in uridu illa islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wa axiru dawana an alhamdulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ñu ngi borom bi subhanahu wa taala ci ay xéewalam yu màgg yu rëy yi nga xam ne defal nañu ko di jullitee sërmal ci sunu yonente Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di ko ñaanal jaam yàlla subhanahu wa taala ak yërmande ma xéewalam yàlla bu mu dañ di wàcc ci kawam di ko ñaanal njabootam nga ak soxaabaam ya ak képp ku topp ci seen yoon ba korog bi su penc yàlla ñu si yàlla boole mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di am kontaan ak mbégte ci jàkkaarloog yéen ci chaîne bi di Shamsu TV kii wax ak yeen moy seen mbokk Omar Sis euh, di dom ci imam Abdou sis, ni nga xamne tay mo waral déplacement wa Shamsu TV ñew fi euh, ngir def euh, li nga xamne mom moy ab reportage ci mom imam nak wax ci mom nekul lu jafe ndax li olaf di wax lu ñepp xam lu ta way wax mu doy lolu mom mo ci nek ndax témoignage yi nga xam mom la nit ñi di def ci imam suba ba ngone lépp benn seede bi lay doon muy seede boo xam ni seede yu rafet la te lépp mu ngi aju ci jikko ju rafet yoo xam ni imaam jikko woon ko te ku wax jullit fi muy rawantee ak moroomu jullitam moo ci jikko ju rafet yonent saa sallam day wax ni akmalul mu'minina iman ahsanuhum axlaaqan wala xuluqan ci beneen riwaaya euh, ki gën a mat nit ñi ak ngëm yàlla fa yàlla subhanahu wa taala mooy ki gën a rafet jikko ci ñoom al imam ibnul xayim rahimahullah dafay wax ni ad diinu kulluhu xuluqun fa man faaqaka fil xuluqi faaqaka fi diin nee diine lépp jikko ju rafet la ku la sut ci sut ci jikko ju rafet rek moom moo la sut ci diine te jikko ju rafet jooju suba ba ngoon moom la ñuy seede li nga xam ne moom mooy suñu imam xëy na peut-être dinañ ci am yenn ci exemple yoo xam ne dinañ ko ci joxe ci jikko yoo xam ne imam jikko woon na ko mais balaa ñoo ñëw ci jikko jooju dañuy ñëw ci mbir moo xam ne mbir mu ama am solo la moo xam ne imam daf ko sekkoon ak njabootam ñi nga xam ne ñoom la euh, yilifoon moom mooy yar goo xam ne yar na leen ko ci diine yaa ngi sànq day wax ni waajur joxul kado doomam kado bu gën yar ko yar bu rafet. te imaam yaroon na ak njabootam ci yar boo xam ne yar bu rafet la ndax yarub diine la yaroon ñëpp amul benn doom boo xam ne imaam am na ko te jàngalul diine jàngalul alquran muy góor muy jigéen même ñi nga xam ne sax ay jigéen ñu daan si kër gi ñoom ñu leen daan indi ci biir kër gi ñooñu bu ñu a ñëw imaam daf leen dugal école dañ daan jàng. ñii dem nañ ba am certificat ñi dem ba am euh, BFM ñii dem ba am bac kon loolu ab liggéey bu rëy la boo xam ne imaam daan ko liggéey ci ak njabootam ndax déggoon na bu wér xalis bi saa sam wax naan nit ku nekk rek sàmm nga ci sa njaboot te dina laaj nan nga sàmm woon sa njaboot imaam xaalis boobu daf ko daan dunde li tax mu ko daan dunde mooy amul benn njabootam koo xam ne dugalu nga dem jàngi alquran ba ci ay sëtam ñi mokkal nañ alquran ñenn ñu ngi woon ci daa ja bi nga xamee ne imaam mu ngi génn àddina Euh, ma ci profité di euh, jaajëfal ñaari doomi Lamine ñi nga xam ne moom mooy taawu góor gi nga xam ne ñoom ñaar ñëpp jàng nañ ba mokkal alxuraan euh, bi ñu jàppee ni imam dañ koy war a defal ak ñaan ñoom ñaar kenn ku ci nekk wàccal nga sa maam kaamil yamul ci ñu ci loolu mais seen i loxo sax dafa dugg ci participation bi nga xam ne mooy aju woon ci lu doon xéwloo ñoom ñu leen di ñaanal loolu nga xam ne moom lañ ñaanal seen jur seen maam yal na yàlla jotal ko ci ndax alxuraan dafa nekk loo xam ne ak fayam kenn xamul nu toll ni yàlla di fay ki jàng alxuraan non lay fay wajur bi nga xamne mom mo moo dom doom ji jàngi alxuraan comme ni ko suñu oustaz di waxe Cheikh Moussa al waladu min kasbi abih ci hadith bobu xamne bo demé ci matnu shatibi al imam Shaatibi dafa wax ni fa ya ayyuha al qari'u bihi mutamassikan mujjilan bihi fi kulli halin mubajjala هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والعلا kon fama fama zannukum bin najmi wala bin najli inda jazaihi haulaai hum ahlullahi wa safatul mala alquran dafay wax ne yow mi nga xam ne yaa jàng alquran mooy ci niñ lay màggalee ak niñ lay fayee ak daraja diñ lay jox mu ni say waajur ci boppam sax ëllëg yow man xiyaam yàlla daf leen di defaral ay mbaxana yoo xam ne mbaxana yi leer lay doon ci sabab ak doom nga xam ne ñoo jàng alquran te seen i waajur dugal ci mu ne kon fa ma zannukum bi najli inda jazaihi bu dee bu fekkee waajur bi ci boppam moom la ñuy solal mbaxan ak leer ëllëg yomal xiyaam ba ko ko xam ne kee dafa dugaloon ay doomam ñu jàng alxuraan kon xale bi nga xam ne moom moo ko alxuraan wala moo ko jàng moom li doon ak fayam imaam xamoon na yooyu bu baax a baax moo tax ay sëtam sax daf le a dugaloon ñu jàng alxuraan loolu buñ buñ ci doon waxtaan mën nañ ciy wax fi ba suba te duñ ci jóg ni nga xam ne noonu la imaam doon dundee euh, ak nit ñi ci wàllu diine ak ni mu ci yare woon ak ak njabootam beneen bi mooy dikko yoo xam ne jikko woon na ko euh, bi ci ëppoon solo ci imaam jikko woon mooy mooy jikkoy suturaal doomu aadama bare bare jox ko ne ko demal nga yëg euh, turandoo bi benn jour imaam préparé ndeysaan mook sama yaay ak amindooy suñu soxna benn mag ñun dañuy seeta wax bi ko waaji ne daf ma laa tudde doom ndeysaan imaam benn jour mu waaj ànd ak euh, maire bi ni dañuy seete ji mbokk mi côté Joal gële Euh, Sam Jalle leen waaji waxoon foofu la dëkk ndeysaan imam bi mu préparé ay terangaam ànd ak euh, maire bi ak jeneen euh, soxna ñu ànd dem fa yor daara duñ ko gis ñu wër mboolem tund yi foofu ñu fa yor ay sëriñ daara mais xamuñu tur woowu ci ku yor ñi yor daara ci ci ci zone boobu imam fa lay yendu koroog ba ak ànd boo xam ni ñuy dem ba jëmi jamono waaji fi mais li lay xamal ne imaam ku bari woon sutura la bi fi bi waa ji ñëwaatee te yëgul ni imaam seet si was na ko mais bi ñenn ci mbokki dinañ ko wax ne que imaam seet si woon na la te bi mu ñëwee foofu mënu laa tëj bët xamul foo dëkke imaam dañu dañu njaboot gi maa ngi xaar ba bu ko bu ko bu ko kenn musa wax ne que imaam ñëwoon na fa ñëwoon na fa di la seet si noonu noonu ba ba nii nii musul xam ne imaam defoon na déplacement ñëw ngir seet si turóon doo nga ko waaju tudde te imaam dem na fa ba wër ba sonn foofu mais mu gisul waaji kon loolu day jikko yoo xam ne imaam jikko woon na ko mu bari lool yoo xam ne buñ ci doon waxtaan benn bu ci nekk euh, duñ duñ fi jóg kon daal li olof naan lu ñëpp xam lu ca waay wax mu doy mooy waxi dëgg ñu ngi koy ñaanal daal yal na yàlla ma yërmande ci kawam yàlla na yàlla yërëm ko te jéggal ko jéggal itam ku dub julli te jata dem yéexee ñi des te bu ñuy dem yóbbaale ngëm yàlla na yàlla def firdaw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 mbokki téléspectateurs yu Shamsu TV mbokki internet yi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen bal wax te di leen baal di ñaan yàlla nañu yàlla boole jéggal noo ngi jiital si nuyoo bi bay Baye Serigne ba Baye Serigne Assane Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko ci kanamu njaboot gi. Euh, di nuyu bépp xalifa généraux waaye di nuyu bépp kilifa diine di nuyu bépp kilifay aada euh, jiital ci son excellence président de la république bu Sénégal monsieur Macky Sall ak ñi mbokkal gouvernement bi yëpp. Euh, mbokk yi tey di samedi 29 juillet 2023 Shamsu TV ñëw fii ci euh, Béer Thilane euh, ku ni béer nag ni dëkku diine ku ni béer ni dëkku cosaan ku ni béer ni taarix ñu ñëwoon fi nag ci benn bés yoo xamante ni bi bësu alxuraan la bésu ñaan ñu ñaanal suñu wayjur bu baax woo xamante ni bi dafa génnoon àdduna tey doon ñu koy fàttaliku mu yemook anniversaire am Euh, muy sunu wayjur euh, di sunu baay nekkoon kilifa gu ràññeeku ci tund wi nekkoon kilifa gu ràññeeku ci Sénégal waaye nekkoon kilifa gu ràññeeku ci xadara Seexu Thiénaba Maam Amary Ndaak Seck euh, muy sunu baay abdu Abdou Ciss moom lañu doon ñaanal tey fii ci biir biir ci laan ci kanamu imaamu ratib ak ñi mu bokkal jumaa ji yëpp. Euh, moo xam bilaal yi moo xam imaam yi moo xam euh, naay yi ñëpp rek waaye tamit euh, kilifa yi nga xamante ni bi ñoom ñoo dëkk ci tund wi yaakaar naa ne ñoom ñëpp wala ñi si ëpp ñëw nañ teewe ko bi ñu ci bàyyikoo nag du ñàkk ñenn ñu ñu tàllal suñu micro si njaboot gi ki ñu toogal ni suñu wayjur la nekkoon soxna si suñu wayjur wi nga xamante ni moom moo génn àdduna yàlla na yàlla dëkkal ko jannatul iliyina ci barke sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam Euh, njaboot gi mu bàyyi ginaaw yal na yàlla teg ci ñoom loxo ba lépp loo xamante ni bii ay mébét la ñu amoon si moom yàlla yeggale ko. bu ko defee rek euh, yaay booy euh, ginaaw bi nga nuyoo ba noppi rek dañoo bëggoon rek ci kàddu yu gàtt ndax gan yaa ngi fi. ndax yaakaar naa ni yéen ñi nga xamante ni bii yéen a nekkoon ak suñu wajur woowu imaam Abdou Ciss doon imaam nekkoon imaamu raati bu béer waaye doonoon borom xam-xam. donon ku yalla baxal donon ku yalla defar waye donon kuy defaraate yakarna ni témoignage yi di ngeen ko sétane à travers Shamsu TV waye yow mi nga xamanteni euh, yena nekkon ci kër gi euh, nga nekkon soxnam ouf xalé yi yakarna ni du ñak loo ñu mën a baaxee si ndax seede bi gëna bi gëna bi gëna yenu manam moy ki nga xamanteni bi mom mo dëkk ak euh, ki muy seedeel kon bu ko rafé rek yaay boy loo ñu mën a suñu wayjur woowu rek inshallah allah. assalamu alaykum maa ngi sant yàlla di jur si sandina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sama ñaari waajur di sant kilifa gi dem ndax ba nuy ànd rek ba nuy yàlla boole gu nuy tuuti lanu waaye mbooleem lu si nit wax rek ci baax baaxam ak ak goreem ak ak dëggoom rek am nga loo si bàyyi am nga loo si bàyyi imaam ku am diine la imaam ku baax imaam ku bëgg njabootam la ku yara ak njabootamit fu fu si nit nekk rek te war faa nekk te mu teg moo la fa teg moom diine rek ka ñor bëgg lu dul diine alxuraan rek ka ñor bëgg ñëpp nag. bëgg nak wa kër maam amari day wasilaam waye nak ñepp la bëgg mam yalla dimbalé nak loolu amul amul amul ben ben ben ben nitu yalla bu bay ëpp du bëggul yalla yit wan nak ka yit ci bëgg dé demam yalla wan nak ka ci bëgg dé demam ndax bimu ne bimu nekké ci si si si si bëgg bëgg dem gi ma ngi dégg mu wax si sëriñi Tuubaa yi sëñ Cheikh mbacké tuddu sëñ Cheikh Mbacke day dafa amoon benn doomam bu mu doon yónni ni teeg ba sa yàgg ma ni man daal li mu doon wax sax ba mu koy yónni daal ah ci sama ci sama xel rek laay waxe ni teeg daal di bàyyi loola guddi googee door woo Omar mii ni wool ma Omar ma ne Omar da dem na mun ma wool ma Mouss ma ne dem nañu. te ku leen woon a ni day tiit dañuy tiit dañuy defee ni lu nekk la lu mu doon doo ma ko wax mun ma bàyyi ci sama xel rek lay wax Baye Abdou dex na nit koo xamante ni ay baax baaxam ak aw melokaanam ah nit ak yàlla rek la Baye Abdou ba nu nekkee ba fii nu koy wax nu nekk di ñaari gune musuma ni Baye Abdou dóor na ma ñu ànd nag ci àndab gor rek nag ndax boo nekkee sa borom kër te mosulaa dóor yow itam am nga foo ko féete xool naa ko ba xam jukkoom lu mu bëgg ma di ko jéem a daw moom itam mu xam sama jukko nu ànd si ak ba yàlla dex ba nu uf suñuy set doomam bëgg si lu dul jàng alxuraan maxeet mii ba mu ko yóbbu kokki damay jooy bay bëgg dee ndax booba maxeet lu tuuti la mëtu dal waaye moom ramassé nañu gune yëpp moo Baye Basirou ak Baye Mbay si di leen yóbbu li ma mu ne li ma am dama ko fi wàcc daal di koy yóbbu réccu wu ko it réccu wuñu ko it kenn réccu wu ko métti woon na lool nag waaye nag ba la ma nag la ma ko doon sang fi ay waay ma xees ma xees seek sa yaram ni mu mel mun ma yaay xam-xam du dugg si bopp te borom amul lii moom la ma tontoo se wana ko yaanu ko baaba wee ma ne ka nga ne du may jooyati mu def wax loolu. bayam ñetti doom yu da la ko yàlla jox yu dund waye ku ci ne de tek na la fa fa nga wara teggu tegu bëgg diina rek bëgg diina rek bayam japp ay sëtam ay jarbatam sax la jëk japp jarbatam yi fi am am nañuy xam-xam bu dul woon moom ginnaaw yàlla ak yonante bi xam-xam gi du am mo leen jël ci seeni loxay bay yóbbu leen kokki ci dëkk bi ñu naa noona la mu daal di ay sëtam yëpp mu génn leen ñu jàng waaye Abdou alxuraanam ji yal na yàlla def ko mu fekk ko fa mu tëdd si barkam na Moustapha ak mboolem ku mu fa fekk ak ku ko fa fekk ak nu ñuy waaj ñun ñëpp yàlla na barkeel ba ñépp a xaj Baye Abdou ay baax baaxam daal mu ne su kaa ba mu jeex tàkk maa ngi jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp yal na yàlla dooli seen jàmm doolu seen sutura doolu seen teraanga. man da loolu laay ñaan Mamadou Lamine it yal na yàlla fayal nu ko xale la de waaye xale bu teel a takku woon la nag bu nu bëggoon a teel a noppalit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 di ko bëggee waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bëggee ba aljana waa Shamsu ba aljana di